Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh uh, ah, mbokk yi Rasul ci yepu iraada yëpp maa jamu leen di nuyu di laaj seen jàmm ak sin jami yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm uh, bi mom mom la ko ndax ab élève arab uh, te xam nga culture culture arabe moom euh, dañoo reetaan lu lool maanaam suñ bëggee wax leen bu leen neexee dañ koy léeb euh, benn waxkat bu mag bu ñuy wax Ahmad Shawqi yi ñu di ko wax amiru shuara amiru shuara boobu nag moom laa tuddee amiru shuara bu cekkeen bi moom imaamu shuara la doon waaye kee moom amiru shuara la nekkoon amiru shuara ca jamonoom lii xew nii da daan xew danga daan gis buur bu falu ba muy bëggu nguur gi mu nekk nit ko am fulla nit ko am fayda dem ba yegg ci sax buy door a falu ñi am crise cardiaque dañuy bëgg dee ñi am tension bis bu nekk ñu yóbbu leen hôpital ndax dañuy tiit lan moo leen di tiital gaynde falu na tey ñu dee waaye nag nee na léeg-léeg loolu day am gaynde gi ñëw bukki sax tane ko nga xam ne day dem ba egg ci ña amul woon amuñu place te kiwuñu leen ci dara ñooy am ay kàddu ak i di wax ñu di leen déglu ñuy jël ay responsabilité di wax ne dañuy lijjanti ay lëj-lëj ña nga xam ne dañ daan lëj le ñu di leen lijjanti ñooy dem ba jël ay responsabilité ne ñoom dañuy lijjantiwaatee nguur buur bu ñàkk fayda day dem ba gone jigéen ñooy yore nguur ga ñoo koy dogal ku ci yëkkati kàddu rek boo ko xoolee estimé ay atam du mat fanweer ñooy mën a génne ay millions ci banque yi ñoo koy mën a wesaare ñooy mën a faj aajoy doomu aadama yi ñooy mën a ci lëj-lëj yi ñooy mën a tëral nguur ay tappaleem ñooy mën a tëral ay diil ngir nax buur ay gone yu tuuti lañuy doon yoo xam ne seen xotti nen yi rëtul ñoo koy man léegi nag suñu maam Ahmad Shawqi loolu la bëggoon a yeete te booba egseegul léegi nag ci lañ toll mu ne daf ñuy léebal <clears throat> daal wax ne léeboon ñu ne ko lëppoon mu ne dama di léebal gaynde ak premier ministre ba mbaam mu ne gaynde dafa mës a nekk buuru àll bi ak mbooleem li nga xam ne manding mi ak désert bi ëmb na ko nekk ci nguuram nguur ga di dox ba am benn bis population bi yépp ñëw di bi ñu ñëwee ànd ak sëgg ànd ak tiit ànd ak jàq daal di ñëw toog ci kanam buur gaynde ne ko ah, buur mu ne naam ñu ne ko ah sa ministre ba nga tegoon ci kanam muy liggéey mi teg ko ci yoon dee na fekk rek dañ koy ñaanal yàlla bu ñu bañ ko nuyoo sukk ci kanamam dañ ko ne yàlla na nga dund yàlla na nga yàgg yow mi nga xam ne fu ñu la fekk say loxoo ngi tax deret say wee ngi tax deret ndax da ngay gajjee ak a xusee ak a xàmpee ka màttee ka sàqamee ka lekkee yow buur gaynde ah buur sa ministre bu mag bi jiite woon nguur gi dee dee waaw kon léegi nag kan mooy jiiteeti nag nguur gi ko teg ci aw yoon buur gaynde daal amut leen lu muy tontu population boobu lu dul ne leen mbaam mooy sama premier ministre mbaam nga xam ne du ne déet du ne dinde du ne un du ne waaw waaw day yori nopp topp sa loo ko sëf mu sëfoo ko mbaam mu ne leen mbaam mooy sama premier ministre loolu nag dogal naa ko tàppe naa ko jeex na gaa yi daal di muuñ sëgg xoolante ne waaw buur gaynde nii lu gis ci mbaam buur gaynde nii lu gis ci mbaam ah ñu daal di ko ne kon ndax loo wax na la yaay buur gaynde ko wax nga fànde mu dee daal di wëlbatiku xibaar ba naaw wër république ba yëpp ñu ne Bour Gaynde jël na mbaam def ko premier ministre ne ah googu nguur day dana xaw a day waar nguuru gaynde ko mbaam jiite dana day waar de ñu toog ba ñu toogee lu tolloog weer weer yi di toppalantoo ni guddi yi ak bëccëg di toppalantooyee buur gaynde daal yëgul lu dul nguuram gi tàmbalee màbb bu toogee ci gàngu naayam bi golo ñëw toog ci wetum ngi jooram bu toogee ci gàngu naayam gi xaj ñëw toog ci wetu càmmoñam su toogee ci gàngu gi rek muus ñëw toog ci kanamam yor ay yaxi jinax di ko seeñu buur gaynde di xool ba yàgg mu ne waaw man sama maam yi fi jiitu woon ana kan ci ñoom moo meloon ni man mii amatuma benn caractère kenn faaleetuma man lañuy waar man lañuy tiktok man lañuy yëg ji man la ñuy saboté man la ñuy kan ci samay maam moo meloon ni man mii ci sama ñàkk caractère sama ñàkk a wegu ana sama kàttan ga ana sama xaañoor wa ma woon ay na sama wegu ga ana niñ ma limaalee woon kenn limaalee tuma léegi ay gone dal ay ay moccu ruccu ay nit ñu tekkiwul dara ay nit ñu amul kilifa nguur gi dal ñoo ci nekk di lëmbee di ciow di dogal di dindi di dokkante ay xaalis di saadale di tej di tiji di karaame bo ma ni nanga mo karaame ñu bu la ca segg mu daj la ci ci yoon bi waaw gaynde jekki-jekki ne man de waruna man de sama anam sama kàttan ga ma yore woon anamu sama caractère ga anamu niñ ma limaale woon respecté ma xam ne maay buuru àll bi anamu ba loola amee nag golo dégg muy wax loolu golo ñëw ba ci wet bi mu sëgg ci nopp bi daal di ko ne ah buur nga jéggal ma de nga bañ ma koo jàppee nga bañ maa yóbbu ca paquetage ba daa am lu ma la bëgg a wax de mun na ko waxal mun na ko yow mi nga xam ne sa daraja ji moo tiim daraja yi ko ne ci biir nguur ci biir sa nguur gi yal na la yàlla def ni nga kawee sab gis kawee noonu yal na ngay xool fu kawee te bàyyee xool fu suufe suufee xanaa xamuloo ne mbuur gaynde karaat yi nga xam ne moom la population bi am ci yow mooy xalaat yi nga am ci mbaam xalaat yi nga xam ne moom la population bi am ci yow mooy xalaat yi nga am ci mbaam bu gaynde jiiteem réew fabi mbaam def leen ay responsable gouvernement boobu gouvernement mbaam lay doon gouvernement mbaam nag yet rek dóor ak wéq ak matt waaye amul leneen lu ñuy def wulli yëq matt ŋaax guddi ŋaax bëccëg kenn du dégg jiital seeni biir di warax luñ def na ko tërux luñ ba dara bu koy defaloo buur jël mbaam def ko ay ministre jël mbaam yi def leen ni ministre loolu lañ fi nekkee wéq matt ŋaax guddi ŋaax bëccëg jiital seeni biir di wan luñ gis rek ne ko tërux tey sé loolu tey séentu la neen moo tax buur bi ci nekkati gaynde war ngaa fexe ba bañ a jël ay mbaam nga wëralee ko sa bopp loolu léeb la woo xam ne suñu maam amiru shuara moo ko doon léeb dafa wax ne al laysu wa wa al asadu wa wasiiru u alximaaru daal di wax ne أليس ملك القفار وما تضم سهاري سعب إليه رعايا يوما بكل انكسار قالت تعيش وتبقى يا دامي الأظفار مات الوسير فمنسى يسوس أمر الضواري قال الحمار وسيري قضى بآس اختياري فاستضحكت ثم قالت ماذا رأى في الحمار وخلفت وطهرت بمدئك الأخبار حتى إذا الشهر والله كليلة أو نهار لم يشعر الليس إلا وملكه في دماري القرد عند اليمين والكلب عند اليسار والقط بين يديه يلهو بعظمة فاري فقال من في جدودي مثلي عديم الوقار أين اقتداري وبطشي وهيبتي واعتباري فجاء القرد سرا وقال بعد اختصاري يا عالي الجاه فينا كن عالي الأنصار رأي الرعية فيكم من رأيكم في الحمار ku ci doon te buurub gaynde am say ministre yi mbaam gër na ma yëq ak màtt ak dóor di coow du jeex muk mukk ak luñ gis ne ko téel ne ko tërëx gër na ma boobu ngay am reality is different inshallah